ngi bëgg euh, décret bi nga xam ne président euh, signé woon na ko en 2019 ñu appliqué ko ndax ndax décret bi lépp mi ngi si euh, nu ñuy jaayee mburu mi nu ñu koy defaree ak nu ñu koy taxawee ba nga xam ne anarchie bi nga xam ne moom am ci secteur bi ndax ñun suñu ay perte Euh, restant bi la ak euh, intermédiaire yi restant bi ñu ngi perte ci suñu production 16 en 20 pour cent ñu ngi perte tamit ci 45 euh, francs par baguette ci vraiment intermédiaire bi jàpp naa ne loolu mooy jafe-jafe bi ndax du nga xool angle bu nga xam ne ñoom li ngi wax ne moo tax ñu war a yokk loolu courant bi la te courant bi mi ngi représenté 1,8 pour cent ñun jàpp nañu nag li nga xam ne mooy représenté 34 pour cent ci suñu production loolu ñu jàpp nañ ne ñun ay Sénégal lañu nax tamit tamit population bi bi ñu ngi koy remercier ba nga xamee ni ni euh, blé bi yokku na dafa dindi TVA bi tolloon cinquante milliards ci euh, ci bi ba pare jël soixante milliards euh, daal koy jàppalee meunier yi nga xam ne ñooy andi blé bi loolu nag su ko defee jàpp naa ne bëgg na ànd ak boulanger mais bëgg na tamit gunge consommateur bi fekkee nag blé dafa wàcc loolu jàpp naa ne état du Sénégal ak meunier ñoo ci mën a tontu mais ñun boulanger yi li ñu mën a wax daal mooy mburu mi conseil bi li mu Euh, tëraloon ci prix mooy cent soixante quinze cent quatre vingt francs deux cent grammes ñun moom lañu ci ci moom lañu tënku euh, ba jamono ji ñu nekk ci lañu nekk kon bu buñ qualité bi nag euh, gramme bi moo tuuti ndax bu ñu nee deux cent grammes moo tax euh, ñu koy xëcc mu nekk 70 grammes suñ bëggoon mburu mi gën a am qualité dañ koy yóbbu 250 grammes nga xam ne baguette bi euh, du gaaw wow te du damm ndax suñ jëlee 200 grammes xëcc ko ba mu nekk 70 grammes mburu mi dafay oyof ndax Sénégal dafa dafa dafa ngelaw ak tàngaay bi waaw mi euh, du duñ ko yokkul te it ñu ngi woo état bi mu accompagner boulanger seen ay jafe ndax boulanger tamit ñu ngi ci perte mais perte bi ñu lu ñu ko andil du consommateur yi du du du du état bi ndax état bi lépp lu mu amoon ci mburu mi dindi ko mu jax tàkk kon ñun suñu biir ñi nga xam ay boulanger lañ ñoo nekk di concurrence concurrence boo xam ne bu delluwaayaat la bi ci jiitu moom mooy restaurant bi nga xam ne dañuy surproduction euh, boo waroon tey liggéey euh, euh, cent nga liggéey cent vingt loolu vingt pour cent yi nga xam ne moom la ñuy yokk suñu production état gunge ñu ndax ndax bi usines yi day xeex seen biir ba jël ñu wàcce ko seen concurrence état daf leen woo intervenir seen biir kenn ku nekk mu fixé la ses objectifs kon ñu bëgg état intervenir ci suñu ci suñu biir boulanger yi ba nga xam tamit restant bi dina ñàkk ndax restant amul fenn Sénégal fu dul euh, Sénégal rek la am amul fenn ci àdduna bi ñun dañuy dem fépp ci àdduna bi ci ay foire mais gis nañ ne restant Sénégal rek la am kon nag suñu bëggee mburu mi bañ a yokku il faut état bi éradiquer restant bi ci biir secteur bi ba pare jox boulanger ay ay ko dote ko ñu mën a mburu mi gën a mën a am hygiène ñu gën a mën a xam identité boulangerie yi mais suñ ko bàyyee mi mu am anarchie même bu ñu ko yokkoon 300 sax du ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoom ANBS ak consommateurs yi nga xam tamit vraiment tamit ñoom ñooy taxaw euh, taxawaay euh, euh, défendre consommateurs yi ñu xam ne ñu ñun boulanger ay consommateurs la ñu ba pare ñun ay ay Sénégal lañu kon bu ñu yàq réew mi li bëgg moom mooy ñu logique ci suñu démarche grève du am rek ngir grève ndax suñu grève war na am logique bu tax ñuy grève jàpp nañ ne amul ndax 1,8 pour cent moo yokku euh, ci ci ci ci ci entrants yi te jàpp nañ ne 34 pour cent mi ngi ci suñu biir yoo xam ne ci suñu bërse suñu ko dindi woon kon mburu mi dina mën a gën a am dina gën a stable ñi may dal sa xele ne ñi toog fii ñooy Sénégal ñun man ñi ñu wax nii euh, diggante ñu ñëw fii am na ñi nga xam ne ñoo nekk Thiès di Ousseynou mi moo gën a produire stress ñu ngi liggéey plus de cent vingt sacs par jour sëñ Moustapha Mbodj mu jóg Kaolack mooy yor na fa ay neuf boulangeries moom moo gën a taxaw Kaolack man mii neuf boulangeries laa yore ak ñeneen ñu mel ni ñu mel ni ñoon kon ñi ngay wax nii ne ñoo ñoo ñu gën a représenté déedéet ñooñu seen buru bi yëpp la ñuy liggéey motu motu une tonne ndax ñëpp ci ñoom ay un sac la liggéey un sac kon ñoom ban grève yàgg na koo xam ne bien grève yàgg na te fay ñu ci population bi ñun ñun nag suñu grève war nga xam ne grève nañu ndax li ëpp ci boulanger yi ñun lañu àndal ndax ñun ñooy ñu ngi fépp ci Sénégal dafa liggéey am na euh, euh, mi ngi mi ngi suñu biir ñëpp kon la boo xam ne ñun euh, ñu nax Sénégal ndax ñun su mbur mi yàqoo ñu ñoo si gën a perte su mbur mi baaxee ñu ci gën a bénéfice moo tax ñun ñuy assurer population bi ne ñun bu ñuy dem grève dafa ñu koy teg mooy état ñàkk waxtaan wax ak boulanger xool jafe-jafe mu ñàkk ko mën a saafara mi ngi nangoo saafara jafe-jafe yi te la preuve moom mooy dindi na TVA bi euh, ngi jox ay yitte ton tamit fekkee liñ ci réew mi leen dëkk bu ñu désorienté mbir yi nañ xool mbir yi fi mu yàqoo ñu jëm ko saafara fi mu yàqoo moom mooy secteur bi dafa am anarchie anarchie boobu nañ ko lijjanti su ko defee secteur bi mën a dellu si ñëpp am mburu mu am qualité adduna moom ñëpp ànduñu fii rek boo fi toogee li fi nekk ci ay consommateur mën nañu mën nañu siis kon adduna moom li am solo moom mooy ñi bokk gëm-gëm ñu mën a ànd ñun ñi nga xam ne ay boulanger la ñu nekk ay vétéran nekk ay groupe producteur ñu ñoo ànd ndax jàpp nañu ñu doon waxal boulanger yi ñooñu ay ay boulanger yu ndaw rek la ñu koo xam ne un sac ngay liggéey kooku yow gero bu yàgg kon jàpp nañu ñi nga xam ne ñoo nekk fii ñoom ñoom ñoom ñooy majorité bi te ñoom seen intérêt moom mooy secteur bi jaar ci yoon te secteur bi jaar ci yoon moom mooy ñu assainir ko lépp lu ci nekk te bëkku ñu mën ko ci génne